jërëjëf doyen Mamadou Sy Albert Adama Fall bonjour. bonjour jëkk bonjour. <laughs> dina ma dellu samay maam rek samay mbokk. maa lay vraiment. di nuyu mm-hmm. ko ba xam naa demul ndàngaan. waaw ah, dama ko rek. Hmm. da nga ko war a gëstu de. dina dara am leeru. dinaa ko parce que mi ngi bu néeg mu jeex nan la daanee di ma saboot waaye léegi conseil bu jeex. incha allah voilà di di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko suñu kanam ayat yu bëri bëri. amiin mu ngi noonu laa team suñu invité moom sama waa dëkk la maa ngi koy ziar baax baax xam nga Birama moom daa far ay nangal mais man Fouta far ah. moom daa far ci séeréer man man séeréer man séeréer bodeeju ma dem ci xaal pulaar dem ma da baddaadi jam tan donc maa ngi nuyu ñëpp di ziar jërëjëf vraiment di nuyu aussi doyen Mamadou Sy Albert di nuyu aussi Adama Fall c'est un plaisir vraiment de partager avec ce plateau jërëjëf Demba Dem foofee dinañu ci yaatalaat léegi léegi moom la ñu dalal tey fas yéene waxtaan ak moom ni ñu ko defee tous les matins ci li nga xam ne moo di avant première de la mi-journée waaye saa bu ne bu ñu xëyee doyen Mamadou Sy Albert dañuy yurlu li nga xam ne moo di yéene kaay ñu xëyee tey d'ici euh, vingt cinq avril deux mille vingt bu fekkee baax na si du côté de la régie euh, ñu dem ñu xool ba xam li nga xam ne moom la yéene kaay yi xëyee naa ne moom nomination yi ci lay bokk conseil des ministres démb bi c' est que journaux yëpp tey presque moom la ñu xëyee y a eu beaucoup de changements c' est bon sama gars yi waa kay la tribune on nag man il faut ma waxtaan ak ñoom parce que seen seen kii bi li Birama doon wax maa ngi koy bëgg a gëma ah. seen kii bi day fees waaw seen ah, une bi day fees. waaw ko tuddee l'heure de récompenses. très bien mhm. Mhm. tout à fait ok. mooy tribune. Ah, ah. gros risque de confrontation à l'Assemblée nationale. Mm. nañ ñu ko jox rek ñun ñuy kii rek ñuy nangu rek. <laughs> ñu dem xool beneen ba xam. la tribune ñu xool beneen lu témoin lu témoin le président Diomaye tey sama <laughs> papa Mamadou Amar Ndiaye le président Diomaye Faye coupe les premières têtes mmh. le port la RTS l'APIX la CDC l'AIBD la SAPCO l'ONAS les domaines les pôles urbains de Diamniadio changent de patron ah ouais. gendarmerie le général Martin Faye remplace le général Moussa Fall beetul kenn ni mo général Moussa Fall moom defe naa général Moussa Fall beetul kenn hmm, plan d'urgence contre la vie chère moo nekk suñu suñu kii tey plan d'urgence contre tout <laughs> mooy suñu thème tey le président Diomaye veut une baisse des prix des denrées avant le 15 mai la soit yal na ko yàlla def yéen a ngi ci témoin ba tey yéen a ngi ci laas maa ngi woon témoin coup de ok avec les photos des ex-DG et de l'ex-haut commandant de la gendarmerie Diomaye limoge le général Moussa Fall L'As quotidien ñu dem Libération Libération qui parle de chamboulement affaire jaxasoo na carte gi pourtant c'est pas trop chamboulé de <laughs> c'est un début c'est un mhm. début. bi de moom saf na moom fast track lañ ko def de. rek intact 6 milliards de francs CFA pour un projet en TOC ah bon construction du centre commercial de Gueule Tapée waaw ah, boobu dafa yàgg de. Mhm. depuis 2019 ñu ngi ci non gaa yi ci mbedd mi ba tey. ci mhm. këralu building ñoo gagné woon loolu koy c'était devant moi fekkee woon naa ko bés bi le jour ça sent gaz. bés le jour loolu la wax bés mhm. bi le jour qui parle du rapport répression excessive arrestation mort impunité amnistie n'amnistie rien ah série de limogeage de DG le ramassage <laughs> de nouvelles têtes entre pastéfiens et alliés général Moussa Fall saute Martin Faye nouveau patron de la gendarmerie Pape Alé Niang prend la RTS Fadilou Keita CDC Waly Diouf Bodian port autonome de Dakar Bakary Sega Bathily APIX Cheikh Bamba Dièye à l'AIBD docteur Cheikh Dieng pour assainir l'ONAS Abdou Nying au domaine mu ngi noonu leer na Cheikh Dieng Sonko place ses ah bon enquête loolu la ah le plan de Bassirou Diomaye contre la vie chère Mmh. Amnesty présente un tableau noir, Amnesty International. Tension à Saint-Louis, les 20 chauffeurs d'Allo Taxi libérés. Alhamdoulilah. il parle aussi de la lutte de Sathiès contre Eumeu On va y revenir ñu dem ci beneen. Vox Populi. Vox Populi, le projet étend ses tentacules où les directions Diomaye et Sonko étoffent l'armature de leur système ah le plan d'urgence opérationnel euh, et les mesures hardies que Diomaye attend du gouvernement avant le 15 mai insertion des jeunes victimes des manifestations hmm. en route euh, vers une déclaration de politique générale Sonko met la pression sur ses ministres ba tey ñu ngi le quotidien le projet en chantier ok le quotidien euh, futur référentiel des politiques des politiques publiques le projet en chantier le document achevé dans cinq mois il sera rédigé par l'expertise locale coordonnée par le premier ministre le comité technique composé de six ministères. Hum. le projet n'existe pas quoi. waaw ah. <laughs> ah. ko déggee de. Ah. lu projet en chantier ils ont mis le projet en. Ouais. ok Diomaye cherche ses militants et ses alliés waaw ñooñu servir Aïcha Sud Quotidien ñoom ci Sud Quotidien hmm, j'ai pas Sud Quotidien devant moi donc euh, à Walf ñu ngi Walf Diomaye prend date le 15 mai la loolu la ñuy xaar sonn nañ trop Macky Sall qui met en péril la paire. Mmh. Hmm, hmm. <coughs> ca Khoureychi <laughs> la rek. c'est un ah, en tout cas. en tout cas daal yéen la daal. Eh, <laughs> les échos <laughs> les échos ñu xool ba xam. le procureur requiert l'application de la loi contre Cheikh Yérim Seck. Hmm. du capitaine Touré. affaire Diony Diony Bougane Gueye Dany et son employé relaxé l'avocat de Smart World compte interjeter appel ok. vie chère loyer emploi des jeunes ak maa intéressé président Diomaye Faye sur les fronts loolu mu yàlla na ci yàlla defal vraiment parce que nit ñi sonn nañ trop mesures le grand ménage a commencé dans les directions générales mm -hmm. ok ça c'était les échos ñu beneen bu dee des na jeex na ay ah source A ok source A conditions de Diomaye les conditions de Diomaye euh, général musa Fall vire Diomaye ils sont balayés font le grand ménage waaw bala bi de mu ngi doog a feeñ moom source a l'info ñëwagul ñu dem ci l'info peut-être tëjee foofu les conditions de Diomaye ñu dem ci beneen ñu tëjee foofu gars yi Sud Quotidien qui revient ah ok l'info c'est l'info le projet décalé en 2025 hmm. retard à l'allumage pour le nouveau régime ça c'est l'info le dit le projet recalé mooy li kii doon wax léegi Adama Fall. Hmm. Hmm. ok importation la déclaration préalable. d'importation oui obligatoire à partir du 1er mai obligatoire à partir du 1 mai même chose situation des droits humains dans le pays Amnesty met à nu les crimes de Macky c'est Amnesty <laughs> indemnisation des victimes des manifestations baisse du coût de la vie les mesures phares du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye foofu la ñuy tëjee doyen <laughs> loolu la ñu xëyee a y a quand même deux deux deux sujets yu ñu euh, euh, cas en tout pour nit ñi mën a comprendre quand même que euh, c'est une suite mhm. président def na discours à la nation bind na administration bi une lettre joxe na mission pour les ministères euh, donc su changer administration je crois que nit ñi war comprendre que. waa Régis pare nañ de xanaa waa Tim Xaru ñoo fi nekk. Mm. Mohamed la. Mm. <laughs> donc. Euh, lu ñuy wax le projet c'est revenu aussi dans tous les journaux c'est-à-dire que le président il est dans sa logique euh, comme il l'a dit dès le départ c'est une rupture de, de systémique que il va y aller progressivement mais en posant des les actes progressifs c'est euh, la lettre de l'administration bi mu yónni C'est ça la conséquence. Il fallait s'attendre à ces nominations au niveau de l'administration. Il y aura aussi, je crois, beaucoup, de changements dans la conduite de l'administration. Parce que nous, nous liguons, euh, changer de paradigme ou même euh, des structures sans administration. Tout passer par l'administration. Je pense que c'est une suite logique. Euh, pas le premier président à le faire. Tous les anciens présidents fait. pour mhm. am majorité politique il faut que tu aies une administration bi nga xam ne mën na la gunge. Mhm. dans la réalisation de ton objectif. c'est les nominations donc maintenant heureusement aussi que au niveau du conseil des ministres il y a une ébauche de de plan d'urgence de, plan contre la vie chère euh, ça aussi je crois que c'est important quand même que gouvernement bi am. Euh, mhm. euh, une feuille de route. d'ici mai ñu mën a am un plan un plan assez fiable assez cohérent pour pour prendre en charge les conditions des, des populations je crois que ñaari axe yooyu daal bon moo gën a génn dans dans dans dans la dans presse bon maintenant c'est vrai aussi qu'il y a l'Assemblée tout le monde attend la déclaration de politique de politique générale mais je crois que débat motion de censure wala opposition pouvoir bon c'est pas vraiment l'enjeu enjeu bi c'est est-ce que l'exécutif va travailler en intelligence avec le législatif je crois que Abdou loolu la woote président loolu la woote maintenant on va voir comment comment euh, gouvernement ak pouvoir législatif ban calendrier ban agenda lañ nar a am boo hmm. xam session yi naka lay demee euh, la déclaration directrice du projet. Je crois que tout ça devrait se mettre en intelligence entre le président, le chef du gouvernement et, l'Assemblée. Euh, à part euh, ces questions-là, je, je, crois que il y a mm les questions politiques. Nous avec, euh, mhm. avec l'invité sur les questions politiques. Mhm. Euh, comment le pasteur va se positionner pour les six mois, pour les années à venir mmh. sont au pouvoir, euh, qu'est-ce qui va se passer Parce que quoi qu'on dise quand même que nous euh, comment ils vont gérer euh, l'État, le gouvernement, l'Assemblée, les populations. Hmm. mu gën a mu mu gën a yaatu. ayca euh, Adama Ba. waaw c'est comme d'habitude la presse du jour. euh, nous donne des informations bi nga xam ni pour l'instant <clears throat> ça mmh. émane de du du communiqué du conseil des ministres parce que aussi il faut pas occulter le fait que <clears throat> excusez dafa nekk dañoo nekk ci changement de régime mm-hmm. donc les gens au pouvoir ils sont fraîchement arrivés et que l'opposition est à présentement donc yamul beneen activité boo xamante ni day def phare par rapport à l'opposition est à fond ah inexistante d'ailleurs il faut, il <laughs> ah et bon parce que ñoom it aussi je pense qu'ils sont dans un moment de grâce dañuy toog respecter les les délais des ah, trente des des cent jours mm-hmm. maintenant l'actualité tourne autour de de l'information bi nga xam ne moom moo jóge ci ci communiqué de conseil des ministres bi donc si mm-hmm. ci loolu la tey euh, presse bi traité moom la ñu exploité wax ko maintenant dans ce communiqué la li nga xam ne moo ci génn mooy bon certains certaines presse l'ont l'ont évoqué mooy euh, la question du projet mooy lañ doon wax fii rek on ne peut pas faire tabula rasa par rapport à un projet pro, programme qui était ñoom ñu di seen projet je pense que ils vont ils vont écrire un doc, nouveau document stratégique bi nga xam ni jàpp naa ni day cumuler les deux pour ñu mën a pour ñu mën a avancer ensemble pour mm. euh, donc projet bi li ñu doon jaay depuis le début le changement systémique par rapport à un projet ci première communication du président de la République démb communiqué conseil de ministres bi wane na ni musul am donc te ñu ngi ciy liggéey non le projet mosul am comme document comme document de base. ça c'est un programme. non projet nga ma wax tu projet non. ils l'ont dit ils vont faire non ñoom seen programme la ils ont dit dans le communiqué du conseil des ministres que euh, expertise sénégalaise bi la ñuy utiliser plus six ministères pour ñu bind document bi nga xam ni moom la ñuy dérouler au en deux mille vingt cinq. donc c'est normal non. oui c'est bien normal. donc est-ce le que projet existait c'est c'est c'est la mise en place xam nga nee naa la Sénégal dafa amoon plan stratégique li doyen doon wax le plan développement non moom la ñu doon wax rek c'est-à-dire ils ont lancé le projet le projet les gens pensaient que c'est un document fini. mooy li président Macky Sall def rek quand il est élu il a été élu sur la bannière de euh, yoonu yokkute avec ce programme la ba mu ñëwee la mettre en place le PSE un an après. donc moom la dérouler c'est comme ça que ça se passe moom la moom la ñuy déroulé nii beneen biir on a on a vu la nomination des au niveau des directions générales c'est normal ça dans l'ordre normal des choses mmh. parce que gouvernement bu ñëw day andi soo équipe bu koy accompagner dans ses missions l'administration sénégalaise restera loyale et fidèle à à l'État du Sénégal maintenant direction yi c'est normal que ñu am ay chamboulement et on attend à d'autres nomination parce que ñoom ils viennent avec une équipe boo xamante ni qui croit a ce projet là qui croit a ce système là pour ñu mën a dem doxal normalement leur vision bi nga xam ni moom la am donc euh, du loo xamante ni lu bette la wala lu loo xamante ni peut-être nit ñi war nañ ci mën a wax wala di ci épiloguer quoi hmm. voilà kon jàll na Demba mooy fàttali ne yaay coordonnateur Pastef Yewwi Askan Wi ca Matam Demba gis nga li nga xam ne moom la yéene kaay xëyee waaw Euh, nu salion saluons d'abord les mesures fortes qui, qui ont émané de ce conseil des ministres. <coughs> Mhm. Euh, lii day firndeel rek lii le président Bassirou Diomaye Faye waxoon donc nous serons dans la rupture te lii euh, dafa wone tey ji nomination yi fi def ñun ñëpp xam nañu ci compétence lu sukkandiku parce mhm. que si on fait le contrario avec des régimes yi fi jàll bi ñu demee ba jël euh, yàlla def ñu jël pouvoir bi euh, la nomi les nominations se faisaient donc étaient subjectives saa dañuy gis ni kii il a travaillé wala gis na am na base après ñu am fi dugal mais ku gis euh, décision yi génn démb di nga gis ni lii donc c'est c'est l'aboutissement d'un processus parce que ku yàgg suivre actualité Sénégal par exemple si je prends le cas de euh, de Pape Alé Niang Euh, Pape Alé Niang tey posture am euh, Barke Dembo Ndiaye dans la crise vraiment qui avait secoué le Sénégal tey ji traitement de l'information ni ñu ko ni ñu ko ci dafa il était équitable man naa wax ni tey euh, il a sauvé même le Sénégal d'un kaw parce qu'il a été objectif il a été équitable donc dafa jiital dëgg citoyenneté tey jii nag bu ñu demee ba di vraiment jël suñu vitrine Euh, parce que la RTS c'est la vitrine du du Sénégal tey bu ñuy jël lu toll noonu di ko confier donc Pape Alé Niang man damay gis ni c'est vraiment juste euh, buñ ci jógee euh, wax nañ fi léegi projet bi may fàttali Adama Fall donc projet bi c'est un processus dafa am fi mu jógee ak fi mu yegg mhm. parce que bu ñu yaakaar ni rek projet bi dañ ko war a pousser bind ko nii parce que da dama lay delloo ci 2014 quand le président Ousmane Sonko commencé donc à lancer ce projet euh, bi mu koy def il a tenu un discours tey jii mën nañu wax ni le sénégalais am na 2014 ba tey bi donc il a évolué sa mentalité a évolué li waral loolu parce que il a beaucoup sensibilisé loolu le président Ousmane Sonko moo ko presque liggéey na ci lu bëri mën nañu wax ni tam aussi il a cultivé le patriotisme parce que inculqué na tey jii nit ñi euh, bëgg sa réew inculqué na nit ñi tey vraiment bëgg vraiment gëm sénégalais bi nga doon parce que changé na pratique yu bëri euh, systématiquement li ñu xamoon bu njëkk hmm. même la façon de faire de la politique les gens euh, sénégalais yi dañ doon toppee nit ñi les leaders parce que qu'ils ont quelque chose mais tey le président Ousmane Sonko donc grâce à ces pratiques dañuy il def na ba euh, de telle sorte que les Sénégalais au ñuy topp alal dañuy topp projet et je pense que ñun projet moo ñi mën a yóbbu ci kanam léegi nag damay jàpp ne procédure yooyu processus boobu moo ñu indi. mooy doog a tàmbali discours mm-hmm. y a un comportement donc même buñ ko deful tey ci papier mais mën naa jàpp ni mu ngi ci jikko nit ñi. mu ngi ci xelu nit ñi te loolu noonu ce fi en combat qui nous a amené jusqu'ici donc projet bi bu dëgguru loolu wala bu amuloon ay assises yu solide kon tey jii mën nañu jàpp ni kon du yegg ci pouvoir bi léegi nag wax na fii ak 2025 incha allah il va mettre contribution donc les sénégalais pour ñoom ñëpp di jàpp ci ci ci projet bi parce que waxoon na dañuy bëgg def la transparence et l'inclusion sociale mm-hmm. parce que lépp li ñuy def rek du ñu nii bon ñu ñoo liggéey ba yegg ci nguur gi donc tout ñun ñoo war a def lépp déedéet donc ce projet là qui qui a été commencé depuis 2014 donc va être finalisé en 2027 mais en mettant en contribution toutes les compétences donc des Sénégalais. Mm-hmm. man dama jàpp ni bu ñu defee loolu euh, incha allah rabbi réew mi dina ci gis si boppam. voilà parce que dañuy tijji yëpp. loolu la ñu yaakaar loolu la ñu ay baax na loolu la ñu yaakaar ci ñoom mais avant ñuy dugg ci kii bi plan d'urgence bi euh, étudiants Matam yi nekk Dakar te ñu leen di waaj a génne seen logement yi lu ngeen ci xam. bon xam nga ñuy sori. bon effectivement ça, ça c'est un problème qui qui est là. ñu nekk Bambey ah Bambey la ñu nekk je pense waaw. parce que mosoon nañu fi éviter daaw. mën mhm. naa sax ba indi fi euh, sujet bi. parce ah. que man j'ai directement par ces bon ce qui se passe parce que ñooñu euh, souvent bu ñu génnee euh, dem Bambey wala à Dakar donc effectivement dañuy jànkoonte pour logement mhm. léegi nag ñoom li ñu daan def mooy souvent il se rabattait euh, ci ci xamante ni waaw non wala les leaders mhm. les leaders locaux mhm. am na ci ñoo xam ne ay ñoom far la na nañu bon amoon na keneen ku ñoo xam ne fàtte naa je pense que lui travaillait dans les phosphates là c'était un directeur mais ñooñu commencé di leen fayal mais à un moment donné je ne sais pas dañoo arrêté seen. dañoo arrêté waaw bëri na ci de. étudiants yi sax génne nañ leen di seetaan mooy seen maire. bon moom maa koy interpellé directement bu Grand Dakar moom. boobu moom maa koy interpellé directement. parce que man ah. euh, en mhm. bokkoon naa si ña ñi ñaawlu woon loolu. loolu nag li ko li ko indi mooy parce que ñun euh, au niveau du Fouta man dama jàpp ni dañu war am benn université foofu. parce que xam nga loolu voilà parce que tey ji bu ñu seetee Sénégal ak Fouta aussi fi mu nekk je pense que le Fouta mérite donc son université maintenant c'était une promesse donc Macky avait faite au Foutanké parce que dafa cible woon euh, même la commune de Matam pour installer cette université mais malheureusement defu ko donc la demande elle toujours la parce que dama jàpp ni euh, Matam soxla na am université euh, pour plusieurs raisons parce que dina euh, au moins euh, euh, éviter étudiants yi di am déperdition scolaire beneen mbir mi damay faral di wax l' étudiant le bachelier il n' est pas assez mûr donc tey jii bu amee bac war a dem feneen day génn ci giron sociale familiale bi dem feneen foo xamante ni tey jii peut-être day il va devenir vulnérable ou bien elle va devenir vulnérable donc ñun li li ñu gënaloon mooy ñu am au niveau du Fouta donc benn université bi nga xamante ni surtout maatam parce que maatam lañ ko lañ ko war a def donc ça il faut qu'on le rappelle aux nga xam ni tam aussi l'élève dina mën a jàng depuis la CI ba euh, ba université ba xam ne tey jii ci day ñëwaat ci day xëy ci këram di wàcc ci këram parce que ñun loolu la ñuy bëggoon ko parce que man waruma nekk fii di la tontu sax d'ailleurs wala yow nga may tontu mais ce que je veux mooy ces nominations dañ ko teg teguñu ko ci am na base wala amul base c'est enquête de moralité la ñuy def ci directeur général bi xool profil xool compétence am ñu jox ko ko amee base tant mieux amul base tant mooy am na compétence du poste. nomination état noonu lay demee parce que tamit nous sommes dans une république et république dafa am nu muy fonctionner amul benn président de la république buy fal doomu aadama boo xamante ni ci poste de direction te amoo hiérarchie A1 au bas wala nga am euh, euh, un master maintenant nag le ministre mën na am diplôme bu ko neex mais le directeur général foofu la ñu war a toll maintenant puisque yéen a fi nekk on a nommé des personne il faut qu'on est-ce que ces am nañ hiérarchie suñ ko amee mën nañ jël profilu post bi suñ ko amul amuñu droit nekk ci profilu post bi yaa ngi rappelé ba ñu fi nommé comment il s'appelle euh, Mahmoud Saleh directeur de cabinet andi na fi coow parce que dañu ne il n'est pas amul hiérarchie bi bi mu war a mën a nekkee directeur de cabinet andi na fi coow parce que république noonu lay fonctionner maintenant euh, looloo fi am li ma wax mooy li nga xam ni moom noonu la république di demee xam nga. euh, comment il s'appelle Demba quand vous êtes arrivé au pouvoir nit ñi dañ leen di bàyyi ngeen doxal par rapport ak votre vision et ce que vous avez dit moi j'ai dit que ces dañ ko doon xaar mais normalement suñ doon déggu seen kàddu yéen nomination waragul am parce que da ngeen ñu jaay appel à candidature voilà normalement nomination warul am parce que da ngeen di ko jaay. si conseil des ministres ils ont parlé candidature pour les directions ba Philippe Montey Théodore Montey toog fii mais loolu bu ñu ko naree def dina compliqué nañu nommer les directeurs selon les compétences peut-être qu'ils ont changé de entre temps a changé entre temps de confusion ok Par exemple, pour ce qui est de l'appel à candidature, c'est des fonctions stratégiques. Par exemple, euh, occuper telle fonction dans un projet. projet n'est que plusieurs partenaires techniques et financiers. loolu c' est un poste en général stratégique parce que du Sénégal rek mais c' est euh, dans en à l' on, on cherche les meilleurs profils, les meilleures compétences. Par exemple, pour donner un exemple, dans l'enseignement le, supérieur, même département nee na par exemple damay ubbi telle filière wala telle enseigne lu ñu la laaj mooy nga def appel à candidature à l'échelle internationale wala à l'échelle africaine parce que c'est l'enseignement supérieur qui a cette norme-là administration loolu moo tax ñuy wax appel à candidature appel à candidature nag bon c'est c'est ouvert à tout le monde c'est pas seulement aux Sénégalais hein c'est ouvert aux Africains euh, qui peuvent compétir parce que on est dans euh, l'Union africaine on est dans la CEDEAO on est dans l'UMOA mais c'est pas pour rien d'ailleurs que ñun on a des postes dans ces organisations sous-régionales ou communautaires mais loolu c'est différent pour par exemple donner l'exemple bu jox la RTS par exemple okay. tu peux pas faire un appel euh, d'offre à ce à ce à ce à comme directeur du soleil wala wala comme euh, je ne sais pas d'autres structures yu ñu yu ñu nommé fii l'AIBD l'AIBD sax à la limite mën mënoon mënoon na laaj un appel à candidature avant, parce que quand même, c'est pas seulement le Sénégal, c'est le Sénégal avec tous ses, tous Donc il faut faire la différence. Appel à la candidature, oui, c'est des postes spécifiques. Mais pour l'administration, de manière générale, de fois vous appel euh, à la candidature à mouvement. Mais par contre, par contre, c'est au niveau des marchés publics. Mais doyen, mais doyen, mais Ousmane Sonko n'avait pas dit ça. Pas dit. Il n'avait pas dit ça. c'est-à-dire yow yaay expliquer yow yaay expliquer non may ma tuuti may ma tuuti non j'ai dit moom mooy moom mooy expliquer moom mooy expliquer l'appel à candidature noonu la war a demee mais ñoom il n'avait pas vendu ça man dama jàpp ni sax ni pour des postes de direction générale et autres jarul ak appel à candidature parce que man loolu laay défendre mais ñoom il n'avait pas dit ça il avait di à travers un live maa ngi wër vidéo bi de il avait di à travers un live am Ousmane Sonko mais les postes de directeur de, de, de directeurs généraux appel à candidature lañ koy def pour tous les sénégalais pour may chance bépp sénégalais pour ñu mën a bokk ci mun a mën a wane seen i compétences. kon yow da jàpp ni Pape Alé wax non man nekkuma di tudd tur s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît may ma tudd non s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il Demba Demba Demba Demba may ma tuuti yow yaay invité bi amal comportement su may wax mais li ma bëgg wax mooy waxtaan bi ñu doon waxtaan en off en off moom ngay génne ci kaw. non pas c'est pas en c'est pas. non tout à l'heure ma j'ai de nom. non non man maa wax léegi. non c'est moi qui ai cité. waaw Alenia tout à l'heure wax de nom. non j'ai pas cité de nom. non moi je l'ai cité nommément. je l'ai cité nommément donc doyen parce que am na fu mu nekkoon bu baax koo xam ne peut-être moom il explique ce qui devrait se pa comment ça devrait se passer normalement. oui mais ils n'ont pas dit ça. non mais ñoom bu ñu ko waxul tu attends que doyen pare après yow wax ne ils n'ont pas dit ça loolu day indi après du yàlla mais tu laisses les gens au moins terminer s'il te plaît. je je reprends un peu. waaw merci cest que débat politique alama du waxoon ngeen lii defu leen. ça vraiment c'est pas un débat politique. ça évolue aussi. que euh, comme tu disais tantôt ma ma posture au début dama lay dagg non xam nga tax dama koy préciser doyen ma posture du début c'était li ngay wax que man je ne suis pas j'ai toujours dit je ne suis pas dans ces choses là réalité politique mais on a un invité qui me voit d'un autre et qui vient ah attaquer frontalement. Non, non, suis pas dans ces ah discussions. c'est pas ce qu'on euh, Non, il n'a pas compris.

si on le dit, c'est qu'on on, ne suit pas ce qui se passe. Mm. Le président de la République a fait un discours à la nation. C'est un discours de, du, du, responsable du passif qui a élu président de la République. Effectivement. Se reprendrait tous les axes du président de la République dans son discours à la nation. Tu reprends la adressée à l'administration. Tu vois les nominations actuelles, mais il y a quand une liaison. il est dans son approche à lui. il est dans son orientation mais mënoo wax ni kooku amul projet. loolu sa gis-gis la doyen sinon tu crées un débat stérile. mais sa sa gis-gis la yow tamit doyen. non non euh, non ça ça dit que. ça ne fait pas avancer un débat politique. quand même moi j'aimerais que doyen nga dellu si waat un peu ci li nga doon wax léegi comment naka la ñu war a choisir un non gis nga problème ça dépend aussi de l'administration administration dafa am dafa am réalité. man les gens ce qu'ils ne comprennent pas c'est que c'est quoi la rupture c'est le premier problème qu'on a depuis que Diomaye est au pouvoir rupture ça ne signifie pas que tout ce qui est passé derrière moi là si je mets ça à la poubelle rupture ça veut dire simplement jëloon nañu orientation bi man ma ñëw ma ne beneen orientation lay jël c'est ça la rupture je change de direction mais deuxième rupture, c'est la démarche. il a pris l'orientation d'une gouvernance de souveraineté politique et économique ku ku bugg a xam politique da ngay sukkandiku ci orientation boobu bu mu jël démarche bi c'est la concertation avant de prendre une décision il a pris l'engagement de faire des concertations avec tout le monde c'est ça la démarche inclusive mais léegi nag on est dans la pratique dans la pratique ça veut dire quoi il a le gouvernement il a mis en place le gouvernement euh, le gouvernement maintenant l'administration va jouer un rôle essentiel c'est-à-dire que moom orientation bi mu jël démarche bi mu jël mais su amul une administration qui correspond à à cette orientation et à cette démarche fan lañu dem loolu moo tax il change toutes les structures muy direction générale muy les postes stratégiques loolu mënul am appel d'offre parce que il est en train de changer l'orientation de l'administration la démarche et les hommes okay. sur, les cinq ans c'est sur cinq ans ce processus là mm -hmm. qu'on à dire est-ce que Diomaye a réussi le cap de la rupture avec l'administration administration sénégalaise xam nga ku yàq tout le monde le sait les, les administrateurs dépendent du président, ils dépendent du parti au pouvoir, ils dépendent de la coalition qui est au pouvoir. pour man euh, loolu mënul am appel d'offre mënul am mais par contre lu mën am su fekkente moom gëm na li mu wax c'est de choisir les gens en partie de leurs compétences techniques mm-hmm. si su ñu jëlee quelqu'un qui n'a pas de compétences techniques ñu ngi def les mêmes erreurs que les prédécesseurs et pour le moment en tout cas gisaguma une critique sérieuse pour dire que kii amul compétence technique ci poste bi bu ko nommé tous ils obéissent au moins à une compétence technique maintenant am nañu appartenance est-ce que Pastef am na ci am na est-ce que allié am na am na qu'il n'y a pas des indépendants donc c'est le profil de l'administration qu'il est en train de mettre en place bon mu bamtuwaat sur les appels d'offres appel d'offres soo soo déggee appel d'offres c'est une compétence qui n'est pas que nationale. ça engage l'image du Sénégal. l'image du Sénégal. l'image du Sénégal c'est c'est-à-dire que mën na nekk un Sénégalais poste boobu mën na nekk un Malien mën na nekk un Guinéen. Mm-hmm. ça on refuse. mais mais d'ailleurs Diomaye il doit faire attention. ça s'il veut l'intégration africaine ça commence par là. la l'appel d'offres c'est justement pour dire que sénégalais bi am nga profit wala malien bi am na guinéen am na euh, au non des règles communautaires mën ngeen compétir comme comme ni ma la ko waxee université par là loolu laa gën a université Dakar mais il y a des enseignants qui sont de ressortissants des autres pays mais dañu ñu compétir wala nga nekk sénégalais nga nekk en France foofu ngay liggéey nga am poste dans l'enseignement supérieur nga compétir su fekkee doy nga université bi université bi daf lay recruter que nga nekk sénégalais wala nga nekk un africain wala un quelqu'un de la diaspora yooyu poste moo tax ñuy wax appel d'offre international beneen appel d'offre bi nag mooy les marché les les am na fi muy àgg ci somme tu ne peux pas ne pas faire d'appel. c'est donc pour man c'est les deux conditions pour pour appel pour def appel d'offre et ça c'est dans notre intérêt nous nous Sénégalais que que que y a des fonctions quand même euh, qui sont très importantes waruñu rek euh, confier ces ces postes là à des Sénégalais wala à des partisans du, du président de la de la de mais c'est la même chose pour ce qu'on est en de dire là. Je, je prends l'exemple du pétrole et du gaz. Mm-hmm. L'or. Mm-hmm. Mais ça, c'est des secteurs stratégiques. Mm-hmm. mais mënoo wax ne sénégalais rek ñoom ñooy occupé fonction yooyu. Eh, euh, en tout cas on a des compétences mais les autres pays africains aussi am nañu compétence donc il faut ouvrir euh, ces marchés là euh, à des appels d'offres pour que pour que ñu am en tout cas les meilleurs profils en en en Afrique. Bon, maintenant, euh, pour terminer sur la, la question de la rupture. cest rupture, c'est pas que ci wax. ci rupture ci doxalin la. ci doxalin parce que bon Macky Sall waxoon na rupture Wade waxoon na rupture Abdou Diouf waxoon na rupture. donc rupture ci doxalin nit ki la est-ce que ñi muy doxalee pour man dal na xel. maintenant ben, il cinq ans c'est au def na rupture wala deful rupture. mais est-ce qu'il a il a il a il cinq ans est-ce mu ngi koy wax. neexut a dégg parce que bu waxee moom peut naan non dafay wax parce que boo opposition la wala quelque chose comme ça non mais dafa am loo xam ne moom la ñu jaay moom la ñu jaay loo ñu ne. rapidement affaire yi day changé lu est-ce que est-ce que am 5 ans boobu est-ce que dinañu ko may trêve boobu. man de ci li ma gisagum nii xam naa ni. Hmm. man j'ai bon espoir. c'est normal euh, comme li doyen wax <laughs> léegi. donc une rupture. Hmm. donc réussir passe inévitablement d'abord par la consolidation des acquis d'abord li fi nekk li baax. ah nañ ko consolider. kon d'accord nga Adama Fall foofu léegi ñu continuer nag. Mhm. xool jéem réajuster li nga xamante ni tey moo doon plombé. Mhm. suñu développement. ok et je pense que bi ñuy yeggee ci pouvoir ba léegi le président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. dafa incarner loolu. parce que pour exemple tey jii bi mu bi mu ñëwee quand il quand il est venu s'installer au noon na jël le le secrétaire euh, général de la présidence du du NITA donc c'était il était là pour Macky le président sax Sall. loolu c'est là pour l'État. pour l' état. looloo tax ñu téye ko bi ñu defee Papa Macky Sall pour l' je veux dire je veux dire c' par rapport. am na ñoo xam ne moom biir présidence moom bu ñu leen mais xam nga da nga ko téye. di mm. leneen li ñuy aussi rassuré. Mm-hmm. par exemple kii euh, le doyen de l'a rappelé tout à l'heure donc euh, euh, mooy intégration africaine tey le président Bassirou Diomaye Faye li ñu daan gis les présidents qui qui étaient élus cette priorité ou bien c' est leur première sortie c' est mais tey jii. ça moom tout le monde l'a remarqué wax dëgg yàlla ñëpp ñëpp kii nañ ko. tey jii xam nga bi ñu dafa dal xel. sa première sortie donc il est allé euh, rendre visite à un pays frère avec qui. Mm-hmm. nous avons des des des, partenariats ñun ñëpp xam nañu tey di di dox suñu diggante la Mauritanie. bien sûr donc c'est quelque chose qui nous qui nous rassure. Mm-hmm. deuxième chose ñuy wax paregul après il parti donc en Gambie. Mm-hmm. donc loolu xam nga kii intégration africaine bu ñu doon woote donc tey mu ngi fi donc di rappeler rek. ce ce ce projet ce fameux projet dont on parle donc loolu commencé nañ ko bu yàgg. mais pour quelqu'un qui n'a pas suivi de très longtemps de, la marche de Pastef donc du ko mën a comprendre mais le, projet c'est les comportements les le, le projet aussi c'est les manières de faire. Mm voilà donc bi ñëwee fii aussi euh, li ñuy euh, commencé di def nii man ça ça rentre logiquement donc dans le cadre de ce projet. ok maintenant ndax dinañ am job fii ak cinq ans effectivement comme li ñu wax ñun. Euh, inclusion la ñu woote. Mhm. donc euh, d' ailleurs le président Ousmane Sonko wax na ni incha allah d'ici mai on va euh, élaborer un plan d' action bi dañuy joxe agenda. Mhm. pour wane ni agenda bi déterminé liggéey gouvernement bi nii la war a tëddee fii ak mhm. et je pense que avec cet agenda avec cette planification dinañ mën a def suivi et évaluation. donc à chaque étape dinañ taxaw ñu ne est-ce que li ñuy waxoon. wala li ñu mébétoon est-ce que àgg na ci wala àgguñu ci. Mhm. donc qu'est-ce qui plombe qu'est-ce qui ne va après ñu jéem a jubanti mais tout ça. Mhm. se se fera aussi dans la transparence parce que ñun transparence bi la ñu war donc il y aura un dialogue permanent entre le gouvernement donc et le peuple. parce que euh, bu leen fàtte ni tey jii euh, ce régime qui est là donc c'est le travail de tout un peuple liggéey. peuple moom moom voté donc ce projet. te yaakaar naa ne am on a bon espoir parce que tey jii. Bassirou <laughs> le président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. fële tey euh, démb rek barke démb jaay ci ci beneen côté bi la nekkoon donc il était le Sénégalais qui était là donc qui vit la précarité vraiment de de de la vie quotidienne. Mhm. daan am problème comme ñun ñëpp. ah donc ñu jógandoo nag xeexandoo ba yàlla def. tey jii mu nekk ci pouvoir bi. c'était la même chose avec le président Macky Sall gis nga gis nga ñun. damay bañ ngeen dugg damay bañ dama leen di loolu moom c'est un conseil wala c'est un cri du cœur doyen ñuy dal souvent ñu def partisanerie boo boo boo paree fenn doo nangoo doo nangoo wax je parle pas pour vous doo nangoo wax li nga xam ne mooy problème bi Euh, y a d'autres yoo xam ne jaar nañ fa am na lu ñu def mooy li nga la Adama wax sànq li nga xam ne baax na ngeen téye ko jël li nga xam ne moom ngeen indi ngeen dajale ko loolu mooy nekk le vrai projet du président Bassirou Diomaye Faye parce que dafa am réalité yoo xam ne moo nekk ci état mooy ñenn comme li nga doon wax am na ñenn ñoo xam ne tey jii da ngay tu de travailler avec ces gens là parce que xëy na jiitu nañ la ci xëy na am nañ te am nañ expertise am nañ expérience te faruñu ci benn camp xam nga euh, li li doon différence Ah. parce que régime yi passé ni mhm. ñu accéder au pouvoir ak suñu régime yi bokkul bu benn waaw bokkul parce que yéen a ëpp pression dans son discours euh, à la nation dafa wax mhm. ils n'ont pas droit à l'erreur ah parce que projet bi dafa am fu donc fi mu yegg si mais en cours de route y a eu beaucoup de choses qui se sont passées mhm. gis nañ fi ay nit ñi sax ñàkk nañ seen bakkan ñeneen ñi seen liggéey ñeneen ñi en leur a privé de leur de leur liberté. Mm-hmm. donc tey jii ku jàll loolu yëpp ba yegg ci si état. Mm-hmm. je pense que du bokk ki nga xamante ni tey jii euh, moom bi muy fal euh, boo seetloo par défaut sax lañ ko fal. déedéet tey jii c'est la première fois. man bon parce que xam nga. kan lañ far par parce que alternative bi passé yëpp parce que dañ doon doyal ci président sortant bi ñu am ko ñu. loolu moo ñu dalal bi yoon Macky bu ñëwoon bokk sax dañ koy dindi. parce que Sénégal non ba xam lu may bëgg nag xoolal d' naa foofu nag. non non côté moom d' naa Adama Fall il faut ngeen dindi. discours ba parce que am na erreur yu daloon am na erreur yu daloon ñoom ñoom ñoom le régime bu ngeen deful nag dina leen dal parce que dañ doon xas Ablaye Wade xas Ablaye Wade ba mujj bi ñu dem a dem a ba ñenn ñi nga xam ne waroon nañu mën a ànd ak président Macky Sall liggéey sax ñu ba dem ba genre mun naa entre guillemets jéppi leen parce que ils passaient leur temps à dénigrer l'autre régime loolu laay bañ boo bul waxati loolu boo waxati dañ leen far par défaut bul waxati loolu parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans dans cette logique parce que il faut pas le faire xam nga tey jii sax ñun projet la ñu ay ay ay projet solo parce que tey même euh, yi ah donc les kii territorial là xam nga loolu ça rassure ah euh, yooyu tey jii bu si on met ça si on met ça en tey Sénégal euh, dina ci gis boppam te ça va rentrer aussi dans dans le projet de la souveraineté alimentaire. ok xam nga loolu donc c' est un projet solide qui est là. d' accord on attend donc ñun euh, pour wax ni rek fii ak 5 ans yi c' est un projet commun. Hmm. donc dañuy woo Sénégal yi yëpp donc toutes les compétences confondues. Mm-hmm. après ñu a un plan d'action qui a été qui va être euh, installé. Mm-hmm. on attend de d'action là va nous à comprendre. fan ngeen war a jaar. voilà fu ngeen ko nu ngeen ko war a la faisabilité. voilà la faisabilité. d'accord dinaa ñëwaat léegi parce que il faut ñu delluwaat foofu ci Matam Adama. Euh, mm-hmm. nit ñi suñuy nañuy liir communiqué conseil du ministre. d'accord c'est important. j'ai dit que le projet mosul exister rédaction bi sax defaguñu ko. loolu la communiqué conseil des ministres bi wax. j'ai dit non j'ai dit ils ont dit s'agissant du travail d'élaboration du document de référence en matière de politique économique et sociale virgule le projet le premier ministre a affirmé qu'il portera exclusivement le sceau de l'expertise sénégalaise et sera achevé au troisième trimestre de l'année 2024 le projet il est dynamique. bàyyi ma terminer grand je parle de document xam nga loo leen tuddee projet le document de politique économique et sociale moom ngeen moom ngeen tuddee le projet. mu continuer ne à cet effet un comité technique restreint sera mis en place donc un comité technique n'est pas encore mis en place pour le document stratégique de politique sociale et économique dont qui s'appelle le projet à la primature Cette instance sera composée notamment des ministères en charge du plan, des finances, de l'industrie et de la souveraineté alimentaire, de l'emploi, de la transformation, du secteur privé et du bureau organisation, le BOM. lii la communiqué conseil des ministres bi wax ñu tënk ko mooy document de politique économique et sociale amu leen ko woon balaa ngeen di ñëw ci pouvoir parce que bindagu leen ko. mais nga yaakaar may ba bàyyi ma terminer grand ba ngay wax dama toog croiser son bras. c'est ah ban projet lañ jaay Sénégalais yi. li ñu wax fii. li ñu wax fii. wax kese la ñu wax. j'ai dit xam nga nag soo ko waxee lan mooy projet bi du la ko wax tur bi rek la lay jox. xam nga lii nii. projet bi patriotisme la bàyyi ma terminer. c'est-à-dire on gère pas un pays comme ça. on gère un pays à travers un document stratégique de politique économique et sociale. donc ci document. grand grand grand communiqué conseil bi di ministre moo wax de. man du du sama wax de li may wax nii. même tout non déglu ma waa déglu ma grand déglu ma seen communiqué communiqué bi génn démb moo wax lii. waaw ah, man dama posé question Adama Fall moi j'ai posé une question démb ou avant-hier. ça c'est un programme. non non non. tu as pas le programme il rentre dans le. ma tuuti grand. man Pastef mosuma dégg ñu wax euh, programme ils ont toujours parlé d'un projet. yow maintenant ils ont. c'est un projet qu'ils ont vendu aux Sénégalais. mais xaaral bàyyi ma daal un projet qu'ils ont vendu aux Sénégalais ba tax. sénégalais gëm loolu. mais ba tax ñu àndandoo. mais ma Maria waxuñu loolu démb. mais c'est projet. ils ont dit ils ont ils ont dit. ils ont dit euh, Amadou euh, man li may wax du. fi mu fi muy fi muy foofu. non non non a écrit. grand grand. on parle même man en fait entre le premier ministre. non non non pas ça moom day mel ni euh, le président Sall daf non non non j'aimerais j'aimerais savoir. Ah, euh, Demba Demba xam na laa bëgg pour ñu wax pour mu pour mu leer. entre le projet ou le programme du PASTEF et le projet bi nga xam ne c'est l'État du Sénégal fi mu nekk ni bu ñu génnee ci cadre PASTEF c'est l'État du Sénégal qui en parle comme ça moi j'aimerais quand même qu'on puisse faire la différence. c'est-à-dire xam nga xam nga man man. je j'ai lu le communiqué du conseil des ministres. je l'ai lu comme tout le monde. comme tout le monde donc document de référence de gouvernance amuñu ko woon. ils vont mettre en place une équipe technique qui mais loolu la ñu wax fii ci. c'est ça qu'ils ont dit. man li ma mais non ça ne le projet. waaw defal ndànk waaw grand. président Macky Sall il est arrivé au pouvoir ma ñëw dem ba s'il vous plaît quand il est arrivé au pouvoir il avait un projet nest pas le président la déglu rek. non déglul déglul déglul. déglu wax nit ñi déglu. non xam nga parce que dañu lay déglu yow. non buñu la dégloo aussi il faut Maria li nga wax. j'ai posé deux questions n'a pas répondu j'ai dit li nga li nga wax tontu naa la ci. dama ne moi j'ai lu. ce que tu as lu c'est-à-dire ba mu faloo. dans sa première déclaration il a parlé de projet suñu projet suñu projet suñu projet un projet de gouvernance moom ngay présenter askan bi du dëgg ñoom ñoo bind seen communiqué conseil des ministres ne équipe technique mooy defar projet bi. mais ñi bind seen. kon li ñu doon li ñu doon jaay démb amul. Adama am na loolu mooy benn. non am na je damay àggali de ah, damay ah, àggali damay àggali. bàyyi ko mu damay àggali damay àggali sa loolu mooy benn dans ce pays là la loi d' les lois d' appel am na fi te ça date pas d'aujourd'hui c'est pas vrai c' pas vrai c' pas vrai da ngeen nekk état appel d'offre dañ koy def tous les jours te ci journal lañ koy lancé. mais comment bàyyi déglul déglul rek dañuy waxtaan gis nga grand. c'est-à-dire vous venez d'arriver. vous ne savez pas comment fonctionne l'État. duñu cuuni ci loolu du loolu. vous ne savez pas comment fonctionne l'État appel d'offre yàgg na am Sénégal. c'est pas une première. mais ça on n'en loolu mooy benn. mais ce sont les loolu di nga ma bàyyi grand. parce que ñeen ni ko doon defee ak ñun ni ñu koy defee. waaw faites mieux faites faites mieux. maintenant que ñun ni ñu ko bëgg a defee. Demba ah, donc ça ça doit répondre. mais loolu xam xam nañ ko. waaw donc bi bi nga xamante ni moo gën a baax mais pour wax ko rek projet bi du li ñu bind rek projet bi d'abord c'est un mindset projet bi. le président Ousmane Sonko daf ñoo jaay donc daf il a sensibilisé le peuple sénégalais comprendre jàngal ni le don de soi le don de soi pour la patrie ni euh, ci wàllu état bépp sénégalais wala ci réew bépp sénégalais da nga war a fàtte sa bopp fàtte sa intérêt jiital intérêt général loolu le président Ousmane Sonko moo ko si moo ko fi euh, ji et je pense que tey jii euh, sénégalais boo gis loolu lay doxee noonu lay doxantoo parce que loolu bul fàttali du du lu ñu bind rek maintenant aussi il a écrit un livre solution quand il est venu il a il a il a fait un constat xam nga yamul rek ci critiquer bu ko neexoon mu ne bon euh, mënoon na kii rek yi critiquer mais quand il a critiqué il a aussi proposé une solution moo tax mu indi livre bi maintenant ce livre la aussi rentre dans le cadre donc du projet maintenant il aussi notre notre programme le programme bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu jaay euh, Sénégalais yi ba 54 pour cent de Sénégalais voteel ñu aussi ça rentre dans le cadre du projet maintenant euh, bi ñu ñëwee ba accéder ci pouvoir bi dama koy fàttali aussi projet day évoluer projet du lekkul loo xam ne rek day figé wala day fixe donc le projet de 2014 mënoo ko adapté en 2024 mais il faut mu am ay coppite maintenant ci coppitee yooyu le président Ousmane Sonko. dafa bëgg woote. s'il te plaît sensibiliser Ousmane Sonko le premier ministre de la République du Sénégal ou bien le président euh, Bassirou Diomaye Faye. donc et son premier ministre dañoo bëgg mettre à contribution donc toutes les tout en tout cas toutes les compétences euh, de ce pays pour que ensemble ñoom ñëpp ñu jéem a xool nan la ñuy euh, corriger nan la ñuy kiiyee donc pour wax ko rek projet bi nekkuloon du lu ñu bind rek ah, mën nañu bind projet fekk du baax. voilà non cest dire mën nga bind projet sax projet bi du baax mais le projet d'abord. li nga def ci këyit li nga def ci nit moo ëpp solo li nga def ci këyit parce que le projet là le président Ousmane Sonko a réussi à le mettre donc dans en tout cas dans dans, dans la mentalité des Sénégalais parce que loolu kenn du ko fàtte. mais voilà voilà le, le président Bassirou Diomaye Faye bon parce que bon bu xam naa di ngeen ñu baal loolu. waa di ngeen ñu bàyyi loolu mais xam nga euh, ci ci voilà ci njëlbeen bi loolu la. donc projet bu ñu denc ci nit moo ëpp solo projet boo xam ne ci këyit lañ ko denc. ah oui pour développer pour pour développer voilà. un pays. pour développer un pays c'est un plan ngay mettre en place. mais il est là bàyyi ma terminer grand gis nga nag gis nga bàyyi ma terminer sooy wax damay croiser sama bras taxaw nii même su nekk yow yaay invité. mais sooy wax damay def nii. pour développer un pays il faut un plan alhamdulilah di ngeen mettre en place un comité technique pour defar ce plan la parce que tamit pour développer un pays nous sommes dans une administration nous sommes dans une république elle est écrite c'est sur cette base là que opposition bi la war a ñëw toog jàng ko mën a opposé wu passé ay déclaration par exemple. pressé de s'opposer non grand man fii tooguma fi toogu opposition. non non je dis que non non non. je dis que ils sont pressés de s'opposer parce que actuellement Demba s'il te plaît. xam naa ni Demba 2025 arrangé wu leen. parce que Demba s'il te plaît Demba s'il te plaît. parce que loolu la ñu bëgg quoi que le projet soit ficelé écrit couché sur papier comme ça ñoom ñu am ci li ñu wax. ñu am matière vraiment à s'opposer Demba s'il te plaît mais actuellement ñun on est dans la rupture et nous sommes en train d'incarner cette rupture et depuis. que le président euh, Bassirou Diomaye Faye toog ba lépp li mu euh, def comme acte donc ça a été salué par les Sénégalais. maintenant tu es dañuy jàpp kon nag bàyyi ma continuer. Euh, et s'il te plaît bu ma dagg nag ah. dama la koy ñaan n'est-ce yaay suñu gan nag dañ war a teral <laughs> mais bu ma dagg n'est-ce pas. opposition bi nu ñuy opposé ñoom la concerné mais dama lay wax ci réew lañ nekk ci état c'est sur la base des documents stratégiques. par exemple président Macky Sall quand il est venu il a mis en place le plan Sénégal émergent mooy bréviaire bi nga xam ne mooy dox ba tey ba 2025 2025 projet doog a ñëw parce que ci ngeen koy finaliser teg ko c'est sur cette base là la ñuy doxalee réew mi c'est pas sur des déclaration c'est sur cette base de ce projet là bi nga xam ne document physique la ci la ñuy doxalee réew mi ci la ñuy mën a def suivi évaluation du leneen soo ko xamul ci réew ñu ñoom xam nañ ko ñoom ñii doog a ñëw xam nañ ni c'est sur cette base là lay doxee. mais def nañ ko waaw déglul. ils ont déjà lancé les bases. parce que le président Ousmane a instruit. mais Demba Demba Demba s'il te plaît bàyyi ma terminer ministre euh, a instruit donc à ses ministres de de d'élaborer un plan d'action plan d'action boobu nag. day loolu nattukaay la. je pro je dis j'applaudis nattukaay la Demba je dis Demba je dis j'applaudis tous les actes forts que le président de la République. waa déglu lu grand oh oh. tous les actes forts que le président de la République pose man citoyen j'applaudis mais su ma liiree conseil des ministres nga toog fii di ma wax waxi projet ma ne la projet bi amul parce que conseil des ministres nee na projet bi dañ koy defar. mais nag il faut ñu expliquer non defal ndànk rek non grand waaw non attends Demba jàll à autre chose parce que il a un problème pour m'écouter non non parce que tu sais bàyyi ma terminer bàyyi ma terminer amalgame bi mu parce qu'il pense que le projet amul woon parce que mais amul woon le projet c'est c'est un comportement donc c'est mais amul woon incarnation c'est une c'est c'est une manière de de le communiqué le communiqué d'hier nous a montré que le projet n'existe pas non et c'est le gouvernement du Sénégal qui l'a dit j'ai dit que. toi tu es politique. non toi, je suis pas politique non j'ai dit. toi tu représentes waaw bàyyi ma terminer. j'ai un parti politique. moi je parle de la déclaration d'un communiqué officiel de notre gouvernement. bien sûr ëpp doole sa wax yow. il faut qu'on s'entende aussi. maintenant suñu naree non non c'est-à-dire. ma Maria j'ai des précisions à faire. et je voudrais les faire. n'est-ce pas. fii par rapport su ma waxee ay déclaration c'est parce que c'est des déclaration que vous aviez vendues au peuple sénégalais vous les vendu beaucoup de choses mais quand vous êtes arrivé réalité pouvoir dafa ñëw taxaw da ngeen di nangu ni réalité pouvoir taxaw na il faut ngeen changer de paradigme je suis d'accord parce que tamit doo ñëw doo daw ba bëkk miir da ngay d'accord da ngay d'accord ni réalité pouvoir ñëw na taxaw da ngay changer de paradigme changer démarche changer disposition dans votre programme bi nga xam ne moom la Bassirou Diomaye jour bi ñuy lancer le programme de Bassirou Diomaye Faye vous avez dit tout haut que tous les postes de direction générale dañ koy def appel à candidature. mais ça a été expliqué. par bay bay non grand defal ndànk. j'ai dit ce que vous avez dit tout xam nañ ni loolu mënul nekk. on est toujours dans ce dans ce. bàyyi ma terminer grand man damay jubóog yow de dama ne xam nañ ni loolu mënul nekk. mais pourtant jaayoon ngeen ko population sénégalaise mais mënul nekk. lu tax c'est pas xam nga tax mënul nekk. parce que ba ba léegi nii dara. bàyyi ma terminer bàyyi ma continuer bàyyi ma continuer. xam nga moom day wax ni mais mënul indi preuve loo xam. j'ai que a un problème y a un bëgg tam y moi je suis en kii kii ngeen may kii ngeen di wax mu déglu. damay terminer li may wax dama ne. dama ne j'ai ko ànd naa ceeg yéen ngeen changer paradigme parce que bunul nekk. mais ça évolue. j'ai dit waaw defal ndànk il faut accepter dans le débat que la position de de de d'appel à candidature pour les postes de direction générale yéen a ko waxoon Sénégalais yi munul nekk. man maa leen koy waxal ne munul nekk. pourquoi xam nga tax munul nekk. vous ne pas à tous les postes de responsabilité faire un appel à candidature vous allez perdre du temps. non mais waaw bàyyi bàyyi ma ñëw te dama lay jox sama raison xam tax. la mise en place d'abord l'appel d'offres pour la mise en place du cabinet qui doit faire l'appel à candidature prendra au bas mot deux mois soo jëlee cabinet bi ba pare cabinet bi war a defar fiche de post bi pour la poste de directeur général war a wax war a wax euh, nu mu tuddati euh, expérience bi ñu war a am war a def appel bi nit ñi déposer ça prendra deux mois maintenant si on si si on si suñu nekkee dañoo def nii direction général bi il faut avoir une expérience de cinq au poste de directeur général yéen ñi bokk Pastef kenn du ci nekk directeur général ce sont les gens de l'APR qui seront les directeurs généraux parce que ils ont fait au bas mot cinq ans dans ce poste de responsabilité comme directeur général là vous laissez les militants qui sont avec vous et qu'ils ont les compétences de le moo tax ma ne la appel à candidature mënul nekk nous sommes dans le champ politique et vous êtes accompagné de personnes qui ont des compétences mën nañ parce que les gens qui sont promotion interne la dans les directions le directeur général de de de la poste était au niveau de la poste j'applaudis des impôts et domaines et et inspecteur des domaines. non non j'ai dit waaw loolu tax ma ne la j'applaudis mënoo ñëw fekk nit ñooñu ci boobu bokk ci projet bi gëm ko depuis le début. cela vous cela vous renvoie rek mooy consolidation des acquis. waay waay grand grand man. man yow la man yow laay bàyyi ma terminer bàyyi ma terminer waaw déglu pas. Mm-hmm. mais pour vous dire que quand on est à l'opposition on vend de belles choses soo ñëwee ci pouvoir dalay mu mënul nekk donc aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui non su su nekkee discours de la vérité vous n'avez pas dit la vérité parce que normalement on n'a pas dit non su nekkoon discours de la vérité vous n'avez pas dit la vérité parce que normalement kon con euh, appel à candidature la direction yi waroon nekk ñuy réussir au niveau de de Pastef Euh, bi ñuy commencé am na ñuy waxoon ni da ngeen war a dem ngeen ut des partenaires au niveau de des pays occidentaux ñu wax leen effectivement ñun bu ñu demee peut-être li ñu soxla ci ñoom dinañ ko am soit on va recevoir des financements ou bien des parrains mais loolu lu mu ñuy jural suba mooy sunu projet bi bu yàlla defee mu réussir euh, le président qui sera élu et qui appartient à notre parti peut-être day sentir redevable donc day doon président boo xam ne il aura les mains te loolu daf fi xew xew fi xewaat fi Pastef ni moom euh, li muy soxla euh, ci financement wala ci moyen li nga xamante ni pour dérouler son projet du ko yaakaar fenn ku dul ci peuple Sénégal bi waa ci gëm ñi gëm projet moo doon indi ngay gis ni chaque fois bu ñu waree def dara gars yi def ay levée de fonds contribuer ñu doxal suñu projet. Hmm. parce que kat ñun lii rek lañ si seen. ces gens là n'ont pas été produits xam nga loolu tey. ces gens là n'ont pas été produits je demande benn patron la am mooy le peuple sénégalais. et on a compte de compte à rendre à. je pose question je pose une question mu la. waaw ces gens là pas été promis. non non mais attention am na ñoo xam ne tey jii dañuy contribuer sa mais xamuñu leen. xamuñu leen. parce que gis nga boo wootee patriotisme. non j'ai dit contribution. boo wootee patriotisme. j'ai dit con non non non j'ai dit contribution mais mais y a des même des vendeuses de de de la de la rue là ils ont est-ce qu'ils ont foofu. oui oui. non mais moi je suis désolé quand même pour ce débat. c'est-à-dire que man euh, mon intérêt c'est vraiment d'expliquer euh, politiquement. Euh, loolu am le conseil des ministres li mu jël ces deux décisions majeures mooy que gouvernement bi dina définir une politique économique sociale mhm. c'est important que Sénégal yi xam que c'est un repère qui est posé euh, on, va dans la politique sociale mhm. deuxième repère bi c'est le document stratégique document stratégique le gouvernement a pris l'engagement de, de, de mettre en place un dispositif dispositif boobu moo na sur la stratégie du développement pour moi on peut pas demander autre chose à nouveau président de la République en l'essentiel c'est avoir une politique économique sociale deuxièmement une stratégie de développement troisièmement c'est la démarche mm-hmm. heureusement qu'il est intelligent qu'il se rend compte que développer ce pays sans une concertation. C'est la gouvernance concertée. Politique économique et sociale, ça va être comme ça. La stratégie, ça va être comme ça. Il rompt avec le système présidentialiste. C'est le président qui est élu, qui fait tout, qui définit tout le monde avec. Au moins, il y a cette intelligence-là qu'il faut saluer chez Bassirou. Maintenant, le problème, c'est d'aller dans tous les secteurs comme ça. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire comment passer de la politique économique et sociale, de la stratégie aux populations, comment faire adhérer les populations. Longtemps, Manuel euh, le sang, le pasteur, il faut que le pasteur mesure sa responsabilité. Ça, peut-être il a évoqué benn volet bi mooy que ñoom am nañu un esprit am nañu une euh, une manière de travailler ça c'est leur parti mais par contre pouvoir bi ak population c'est autre chose. c'est là où ils doivent essayer quand même de, de réfléchir pour voir comment faire adhérer gis nga li ñu doon wax pression de des populations si tu n'expliques pas aux populations si tu ne les associes pas ñoom à un moment donné la pression se retourne contre toi et je pense que ñoom les ministres et le gouvernement war nañu quand même euh, am une une démarche bon prolongée par exemple il y a eu débat avec secteur privé il y a eu un débat avec les syndicalistes mais comment descendre en bas et, et là je, crois que politiquement bon euh, il faudra que le, gouvernement quand même essaye de, de réfléchir sur les meilleurs moyens pour associer les Sénégalais euh, euh, à c'est-à-dire la politique économique sociale la stratégie la Sénégalais bu ci adhéré C'est ça qui va permettre aux gens de supporter le plan d'urgence. Le, le, plan d'urgence, c'est le plus difficile à, à, à, gérer. Et pour moi, vraiment, c'est ça qu'il faut peut-être débattre. Maintenant, ça n'exclut pas. Euh, le, on s'oppose à quelque chose qui est réfléchi. Qui est mis en œuvre. Mais on ne s'oppose pas à des idées. Euh, Bon, ça ne fait pas avancer ni le pouvoir, ni l'opposition, ni les populations, ni les citoyens. Je, je pense que le débat, en tout cas, doit recentrer sur les, vraies, les vraies questions euh, de, de, de gouvernance. Mm-hmm. Vraiment, gouvernance, oui. suñ ko mënoon jox àqam bon mm-hmm. c'est ça l'enjeu aussi des débats contradictoires c'est-à-dire faire évoluer moi moi je le Euh, clairement les choses. C'est-à-dire que le, le président, il, est, il a une bonne démarche, il a une bonne vision, il a une bonne écoute, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Parce qu'un pouvoir, tu ne peux pas le mettre en. Quand le fait le avril. Il n'a même pas au moins qu'il soit un président opérationnel. Donc, Donc, ce sont les réalités du pouvoir. Non, c'est le pays qui est comme ça. Donc, moi, il faut voir un job, tel job. que. là, en tout cas, le chemin est très long, il va être sinueux, mais il faut, euh, il faut qu'il communique davantage avec les populations. le pouvoir gère la réalité et le possible. Parce que là aussi, il y, a, il y a une mesure phare qui, qui, qui, nous rassure, hein, parce que le mm. président Bassir Diomaye Faye wax na ci d'ici le 15 mai incha allah. ah surtout loolu ci conseil des ministres. ah wala naa wàññi waxul dina wàññi de. waaw dina dina. il n'a pas dit ça. nañ ko wax loolu ñu ko wax parce que communiqué n'a pas dina wàññi. alors c'est-à-dire dans une république nous sommes dans une république. qu'est-ce que le communiqué a waxul dina wàññi de. pour pour bi la ñuy loolu ça ça incite. que. waaw mais bu parce que moom mais c'est pas pour wàññi. non mais c'est pour ça. il doit trouver des solutions. mais c'est pour ça donc. si on lui propose des solutions mais oui mais attends je veux je tout président la République dafa war réussir sa mission. mais bien li communiqué bi mais communiqué cest à askan bi la ñuy waxal. xam nga xam nga le sénégalais. comprend may ma tuuti. man yow laay dimbali yow laay dimbali. non non le sénégalais comprend au premier degré. non moi je peux me débrouiller seul quoi man am problème mais dama la wax nii rek euh, tey jii lu tax li tax mu instruire donc les ministres pour ñu seet les voies et moyens donc pour réduire le coût de la vie moom xam nañu tey jii y a une situation d'urgence qui est là. Mmh. ma yaakaar ni sénégalais yi xam nga ci li ñu jot a dund. ci fële parce que yëf yi du fële la jógee donc moom il est conscient que tey jii war na jël ay mesures maintenant pour ne pas aussi se tromper dans les mesures donc qui seront prises il a instruit les ministres de de de lui proposer des solutions donc avec d'une manière concertée parce que le doyen l'a dit ici hein donc ñun ce sera notre démarche la l'inclusivité donc tey jii si si on lui propose des solutions effectivement c'est pour aussi euh, mettre des actes concrets. Okay. voilà et là à partir de ce moment bu ñu wàññee euh, vraiment ah. nguur gi ah. Sénégalais au moins dinañ mën a am a xaar tuuti quoi voilà dinañ mën euh, bu ñu delloo maatam gis nañ ne Pastef dem na mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi progressé bu baax a baax a baax foofu ca Matam alors qu'on sait que dans cette zone là lu ñu doon wax naan titre foncier président Macky Sall et tout gagné wu leen fa de. bon gañu benn ci Fouta kay gañu leen. waaw bon am na am na benn. benn waaw ci Fouta ak Fouta dañu toll man. caare bon euh, xam nga quand même ça ça les gens ñu ngi gën a épouser seen projet bi. ça se comprend un mais xam nga loolu. Euh, hmm. tey jii cette réalité mu ngi bëgg a changer. ok euh, parce que li indi woon loolu et malheureusement dañu askanale titre foncier le président Macky te moom demoon na ba wax fi doomu lé léttukat donc du mujj du njëkk létt donc moom mooy mujjee létt quoi souvent loolu la wax mais mm. malheureusement mujj na dem létt wuñu sax gisuñu sax kuy létt alors euh, <laughs> malheureusement aussi ni ñu askanalee Fouta comme titre foncier euh, mm-hmm. tey boo xoolee boo defee bilan de Macky ba fi mu jeexale mm. da nga gis ne Fouta moo ci gën a ëpp moo ci gën a néew ay réalisation tey ji su ma jëlee par exemple pour le cas de Matam. université Souleymane voilà le cas de Matam depuis 2016. Mhm. le président Macky Sall dafa ñëwoon foofu ni dina fa def benn ISEP. ISEP mooy institut supérieur d' enseignement privé euh, professionnel yi. Mhm. mooy yi nga xamante ni tey jii étudiants yi au moins dina mën am benn qualification. 2016 mhm. euh, ba tey bi may wax ak yow nii gars ci ay. parce que waaw te xam nga loolu day doon benn. waaw mais day doon benn benn limite. parce que tey jii. Euh, li école bi mën a jël dina dem ba dootu ko mën a jël parce que on n'a pas assez d'espace. il faut xam nga loolu tam mënoo dëkk ci louer rek parce que su fekkoon ni mooy amul ñu ne bu leen ko def parce que tey ji boo demee Thiès un peu partout dans les autres régions. Mhm. ñu ngi tabax seen ISEP yi ñu ngi taxaw. man tu peux prendre des photos. comprendre non nous concernant parce que Matam tey ji yaa xam nga wax ni wax ngeen ko. donc c'était la chasse gardée c'est ce qu'on dit ah. de Macky du président Macky Sall. te ba kon ñun tey jii ku waroon njëkk am ISEP ci xam naa ñun ci ci la ñu war a bokk. donc loolu defu ko. Mm. pare wu ci après mu ñëwaat encore mu ne day day tabax université euh, Souleymane Niang. Mm-hmm. ba tey jii nii gisuñu ci dara. maintenant le le Fouta aussi a compris. Mm. parce que kii xëy na tam daf ñu utiliser rek. daf ñu utiliser et puis il est parti maintenant ñun derrière. c'est vrai que da doon da doon gagné mais aussi il faut comprendre aussi l'opposition bi ñu nekk opposition aussi dañ doon am ay voix donc et puis ça ça a progressé mhm. tey jii législative yi passé si je prends mon département le département de Matam on était à 6000 voix ah ñu ñëw ci élection présidentielle donc on a presque doublé ok léegi le président Macky Sall il est parti mhm. bokkatul mhm. malgré ça bokkul woon nekkul woon candidat terewul moom mu gagné dans la coalition Diomaye est au pouvoir. effectivement promesse yooyu nga xam ne président Macky Sall daf leen ko defoon. daf leen ko daf leen ko defaloon. Mhm. amul jotul am vous pensez que ce régime là va pouvoir le faire. bon. Euh, yéen yéen ñi nga xam ne yéen. waaw yaakaar nañ ko. <laughs> te bëgg nan aussi euh, incha allah. bu ñu ko mayee le temps de le de grâce bi ñuy wax nii. Mhm. ba mu gën a installé wu. Euh, dinañ yëkkati doléance yooyu parce que doléance yooyu c'est une demande sociale. ok parce que sànq à l'entame de l'émission wax nga ko fi. Mm. parce que am nañu ay étudiants fuutanke wala ay maatamuwaay yi nga xamante ni dañ ñu ngi Bambey. wala université mm-hmm. Ziguinchor ñu leen di ñu am problème location. Mm-hmm. xam nga na yàq seen jàng. donc demande sociale. Mm-hmm. donc ñoom bu demee ba installé wu allah. dinañ leen jébbal doléance yi noonu. parce que ISEP bi. maatam soxla na ko. université Souleymane Niang bi maatam soxla na ko. mais y a aussi mieux Euh, euh, kii fi def agence yi ñu defoon la DER ak kii yooyu donc pour financer les projets de de la jeunesse maatam moom a été toujours désavantagé quoi. Mhm. tey mën nañu wax ni jeune jeune Matam yi chômage bi bëri na fa. donc loolu tam critère la boo xam ne incha allah dinañ ko jël en compte. Mhm. wax ni tam aussi cette jeunesse matamoise on est conscient de leurs problèmes. Mhm. te incha allah dañ bëgg tam bu ñu demee ba euh, le président Bassirou Diomaye fay gën a toog dinañ loolu yëpp dinañ ko soulever. ngeen ko comprendre donc yóbbaale yóbbaale loolu yëpp. Mmh. donc euh, <laughs> voilà. c'est juste pour dire que voilà les mmh. besoins sont la mmh. mais nag du ñu def pression. du ngeen te du ngeen def promesse aussi. non non voilà parce que non on de de man ku ma xam sax. da ngeen am yaakaar rek man damay xaar. ba affaire yi mat ma def. je pense que nga def. moo gën après wax ji topp ci moo gën nga wax te wax ji. te affaire bi du réalisé Matam est là-bas Matam mu ngi noonu. voilà donc. <laughs> Bon, pour moi, c'est vrai que c'est une nouvelle donne que PASTEF mmh. euh, est mmh. le mmh. Fouta aussi, il est comme Il, évolue souvent en fonction des majorités politiques. Ok. Maintenant, euh, c'est au PASTEF e de prendre ses, ses responsabilités politiques. Pour moi, vraiment, l'université euh, c'est une priorité pour, la zone. Mm Bon, mais ce qui nous semble aussi une priorité, c'est le, les centres de formation au métier. Mmh. Ça, vraiment, ça, ça, il faut que le gouvernement fasse beaucoup, d'efforts. Mmh. Parce que tu vois, la, la transformation de l'agriculture, l'industrialisation, c'est une zone assez, assez propice pour, pour mettre en place des formations au métier. C'est la seule façon pour maintenir les jeunes. C'est la seule façon pour maintenir les, étudiants également. Je crois que loolu moom il faut que même le privé national là gis nga les petites et moyennes entreprises là c'est possible de les implanter dans la vallée. mais à condition que nga am euh, le le des gens formés à ces métiers. mais aussi que tu formes des entrepreneurs. Ah, je crois que loolu moom war na nekk quand même une préoccupation assez importante du du gouvernement. Mm il y a aussi peut-être un point particulier daal c'est euh, la diaspora. Mm -hmm. elle est très présente à l'étranger. Mm -hmm. comment le gouvernement ou comment le PASTEF pourrait avoir un projet. Mhm. dans dans cette zone pour. Euh, comment utiliser l'argent de cette diaspora-là dans le financement du développement mmh. Mmh. vraiment c'est une zone euh, où la diaspora est historiquement ancrée. Bon, elle joue un grand rôle, mais mmh. on n'associe pas le, le, transfert de l'argent de, de, la diaspora dans les politiques de financement. Comme les, les femmes ou les jeunes, ben, mmh. gros c'est un gros, problème, c'est euh, le financement. Mmh. C'est-à-dire que toutes les denrées là mais amuñu capacité de stockage. Mhm. amuñu capacité de transformation. préservation même et, et préservation. Mhm. loolu aussi je crois que bon j'espère que dans les cinq ans Diomaye va faire là. bon damay damay rek may ma tuuti. Ah, waaw ñu ci Adama Fall. waaw waa Fouta yi man dama jàpp ni dañu dañ ci dañu war a kontaan. Mhm. parce que tey jii régime bi toog euh, bokk na ci programme am. ñu am benn souveraineté alimentaire. ok te ku wax souveraineté souveraineté alimentaire wax dex donc ndox mu neex. Mhm. wax aussi suuf. Mhm. te bu ñu seetloo ni tey ji Fuuta euh, macha allah rien que pour le département de ñu ngi am cinquante cinq mille hectares de terre cultivable. Mhm. Euh, ba fi may wax ak yow nii quatorze mille hectares rek moom la ñu exploité gu mu des quarante et un hectares yoo xam ne kenn laalagu ko. je pense que s'il y a une volonté politique sérieuse euh, établir ko ci vallée euh, du fleuve je pense que Sénégal rêve boobu mu doon am am souveraineté alimentaire am ce sera possible et ça profiter donc aux populations foutanquaises mm-hmm. li doyen wax nag euh, il faut aussi de l'expertise ouais. parce que ISEP yi ça va rentrer dans dans dans, dans dans ce programme parce que il faut que aussi l'étudiant soit opérationnel qu'il y ait une qualification donc qui lui permettra au moins mm-hmm. de de, de participer pleinement donc mm-hmm. euh, au développement de de ce pays moo gën enseignement général bi ñuy doon ah, Matam bon Matam euh, je dirais pas pas je dirais pas Matam je dirais le Fouta le Fouta en général ou bien le monde rural mmh. quand même ils sont mais voilà ci université étudiants yi ba pare quoi ils seront tout le temps avec le pouvoir obligatoirement. parce que depuis depuis de Senghor de Senghor à à da nga koy xool ci prochaine élection ils gagneront parce que. noonu dañuy dañuy dañuy parce que. dañuy bëgg ku leen di defalal ay infrastructures. donc mhm. soo àndul ak mhm. doo am ay infrastructures de base yoo xamante ni di leen mën a permettre ISEP boobu àgg. Mhm. université bi taxaw route yi taxaw leneen ak leneen taxaw donc monde rural noonu la ñuy fonctionner mooy li doyen doon wax la culture politique du monde rural. parce que aussi. dañuy jàpp ni soo àndul ak pouvoir doo mun a am yenn infrastructure de base yi nga xam ni di nga ko mën a di nga ko mën a développer. doo mën a régler la question mooy mooy mooy la création l'organisation de la la la construction de l'ISEP. la mm. construction de de de de de l'université Souleymane Baal. Souleymane Niang Souleymane Niang forcément day am impact politique boo xamante ni population bi dañ koy def migrer ji vers. le parti au pouvoir pour soutenir ñooñu pour ñu jàpp loolu noonu lay demee. non non na bañ a nekk noonu sax. je je te dire. on espère on espère que on espère que loolu non non on l'espère. waaw on espère bi dem bàyyi bàyyi espère vraiment que du nekk. parce de la population mais effectivement si on se base pas que sur s'il y a pas si ça continue comme ça vous n'allez pas gagner et je souhaite que vous gagnez Matam je le souhaite li ñu jàng ci taarix mooy. intérieur bi ci histoire du Sénégal ñooñu noonu la ñuy comporté ko il vote le pouvoir pour mën a am des infrastructures de base. te te waaw. le <laughs> président ah, sortant le président sortant def na ci lu mucc ayib. Ah, non dama ne. non dañuy waxtaan rek président Abdoulaye Wade non non dañuy waxtaan rek. dañuy ah. waxtaan rek dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan. dañuy waxtaan. c'est-à-dire gis nga. mais nag vous avez eu beaucoup de nominations pendant le. waxuma la malheureusement ça n'a pas profité. au tout parce que ñun li ñu bëgg Demba Demba non ñu bëgg. mooy li ma wax nii les les nominations c'est bien beau mais ça va juste profiter une personne sa famille mooy ngeen di dund foofu. ñun lool loolu lañ parce que euh, euh, euh, moi j'ai été à Matam. j'ai été à Matam. donc ce projet par exemple. que nga nekk que nga nekk au pouvoir au pouvoir wàllu kese. ça va profiter à tout le monde. moi j'ai été à Matam quand yomb naa ay zones yoo xamante ne pour pour dem Matam c'était tout. mais man fa laa juddoo juddoo quoi. vous n'êtes pas un opposant vous êtes quelqu'un au pouvoir. mais Abdoulaye Wade ko defar man maay foofu. Abdoulaye Wade moo ko defar di dama ne man su ma daan dem. maanaam mais bu wax dëkk doyen Duga yi am na foofu Abdoulaye Wade ko defar defal ndànk rek xam nga pouvoir bu ñëw day def li muy def dem. moi je ne suis pas en mooy en terme d'infrastructure man dem naa Matam dem naa Agnam par exemple exemple laa lay jox fekk naa fay hôpital yu mag a mag a mag te amu fa woon dañ ko nangu. mais c'est vide c'est waaye dafa ndànk grand. c'est vide y a pas de spécialité y a rien. maintenant vous êtes arrivé grand vous êtes arrivé. c'est des hôpitaux de fait grand vous êtes arrivé. Mhm. maintenant c'est à vous de compléter ça. comment est-ce que on peut cautionner Matam ñu def fa benn hôpital régional. boo xam ne yenn spécialité. grand da ngay ñaxtu ba léegi. non non par exemple man par exemple weesu na la. au lieu de compléter de relever le cap bu ñaxtoo xëy na ñoom dinañ ko dégg. parce que ñoom ñoo far ñoom ñoo xew non mooy li ma bëgg wax mooy. Ah, Alpha loo gaaw xam non attends bu leen ma sorxo sorxo nag quoi. parce que da ngay gaaw de parce que moi je parle démb nag maa sorxo sorxo ne ma heure bi jot na gaaw. moi je parle avec quelqu'un qui est au pouvoir. qui doit avoir un comportement de quelqu'un qui est au pouvoir. xataraayu ak ñaxtu mooy jeex Sénégal c'est-à-dire li nga war a wax mooy reconnaître les faits yi nga xam ni moo nekk fa man ma demander la que pouvoir bi nekk en place parce que man mi lay ñaanal nga gañe maa ngi lay ñaanal mm-hmm. nest su nekkee avant ngay ñëw am am na lu ñu xam lu bari ci yow mm-hmm. parce que on mm-hmm. na lu bari loo xamante ne man personnellement ba ma gisee affiche bi j'ai mené une enquête sur lui wax ma lu ñaaw nag grave non non xam nga suñu suñu su ma su ma su ma waree avant ici je su ma waree togg ak nit. Mhm. dinaa xam nit ki mooy kan. waaw kay waaw mën a enquête moo garaaw moo. moom laa wax dinaa xam kon dinaa xam nit ki mooy kan. Mhm. yan responsabilité yor te localité. Mhm. est ce que am na unanimité dans sa gestion. est ce que nit ñëpp ànd nañu ak moom. xam naa loolu yëpp. mais puisque c' est pas l' objet du ci dugg. non mais parce que. non non par exemple man ba personne comme li ma wax. waaw ma représente un parti politique. day dama koy wax fii ci plateau bi moi je suis le coordonnateur de Pastef Matam commune. et je suis reconnu par les instances. loolu amul. non. c'est-à-dire xam nga bëgg a génn ci moom moom mooy wax ni. non boo gisee boo gisee ma koy wax teel. xam nga ñaata minutes lañ dese dem ba. non pour wax ko rek. boo gisee ma koy wax télé pour woon ni non dafa dafa am. non loolu amul. si dafa am maintenant nag li ngay wax ni y' a des. y' a des tiraillements y' a des tendances au niveau. non non non non loolu c'est c'est des tendances qui. sa mbokkam yi ñoo jege woon fële ñëw bëgg. déranger kii mais dérangement waaw. en terme ka te ñëw bëgg commencer di kii. mais on a dit non attends va va refaire ton enquête comprendre ñun passé fi on a un mindset une manière de faire. wax leen ni nag ñun ñoom liy marché si ñoom propagande ak populisme ñun du marché fii. comprendre non je dis parce que ñun dañ fa nekkoon di góor góorgóorlu di taaba taaba xam nga ni Fouta militer pour passer ça c'était difficile. je sais mal perçu nit ñi ak li ñuy wax ci yooyu yëpp mais nous. dañ ko dañ ko. Euh, assumer assumer. ok xam nga ñuy taaba taaba. ba yegg si fii nag maintenant léegi lu sotti. jamaale nga daane waale nga daane laal waxaaleel ma nag. projet Pastef foofu parce que il reste. voilà projet Pastef euh, ñun pour le moment. comme li ma wax foofu foofu ci biir Matam. ñu ngi ci. am ngeen seen cahier de di dangeen ko soumettre. waaw dinañ ko soumettre bu demee ba ñu toog voilà maintenant nous on, on reste dans la dynamique de massifi de, de massification. donc parti bi ñu ngi koy massifier. non effectivement c'est c'est tiraillement nga doon wax noonu. Euh, si mënul ñàkk. waaw mënul ñàkk. parce que lu sotti am am borom. Mhm. Euh, ñu ngi liggéey ñu ngi massifier on est en train de de d'installer des cellules. après di leen di jéem sam aussi animé okay. c'est le moment même de remercier aussi l'équipe avec laquelle donc je mm. collabore mm. Mm. parce que tey jii euh, bu ma euh, fale aussi coordinateur donc ñoom tamit. qui a été le plénipotentiaire de la commune. le plénipotentiaire non y en a y en avait beaucoup y avait Mamadou Sy y avait Mamadou Sy. ok voilà Mamadou Sy c'est c'est c'est c'est le voilà c'est donc di di sant aussi. waa Pastef au niveau local donc Mamadou Sy boobu dinaa ko sant gërëm ko moi j'étais j'étais au niveau de école de l'école euh, Matam Matam Ka non non je je n'en disconviens pas saa ni man dama lay wax ni man sama man ci sa man ni ma mel du ma incarné moom lu ma newul du ma def loolu je suis respectueux des personnes aussi man du ma du ma def usurpation quoi ñëw ni man maa doon kii fekk nekkuma ko parce que affiche bi bi bi nga ko defee ba léegi kenn ñëw fi nii la lii kii nekk moi je suis le coordinateur de hmm. Pastef Matam commune maintenant pour avoir aussi le cœur net tu peux t'adresser à Bantawagé qui qui est aujourd'hui notre euh, coordinateur départemental moom xam la laa non non moom par exemple waaw moom par exemple comme day mener enquête moom policier la nekk te yëguma ko woon ok donc maa ngi sant di gërëm tam aussi les femmes avec lesquelles on travaille parce que jigéen ñi tam man dama koy wax mhm. euh, man dama gëm euh, jigéen ñi bëgg tam aussi vraiment ñu gën a yéeg seen bopp dugg impliqué aussi ci développement social bi donc c' est le lieu de de, de remercier les Dieynaba Ba donc Bint Ndiaye ñoom Aïssata Tandian donc Mamadou Sy ñoom Laye Mbaye euh, boo limee juum boo limee juum euh, ah, euh, ñoom xammee Dia ah, donc ñëpp kay mais ñëpp rek balaa ngay juum bañ ku déggul rek ku déggul nga baal ma quoi mais di wax ni rek passif day tijji boppam donc ñun dañuy yaatal comme le ba Bassirou Diomaye Faye non comme comme on dit. xam nga localement on se connaît. le président Sonko am na lu mu waxoon benn jour. les personnes avec les mains propres peut-être ñun dinañ leen mën a xool su fekkee ni mën nañ collaborer ak ñoom ñu collaborer mais ñoo xam ne nag mënuñ collaborer ak ñoom. koo xam ne projet moo la yitteel ñu ñëw. ñu ngeen liggéeyandoo Matam ngeen liggéeyandoo Fouta loo xam ne projet nag taxul a jóg. Mhm. ñun du ñu ànd ak yow. ok c'est bon l'essentiel dañoo yàgg gëm suñu bopp et on va mhm. continuer à croire en nous en nous. d'accord merci je pense que aussi on va. merci Demba on espère te ñu ñu ngi yaakaar am yaakaar doyen. que ne rapidement l'université Souleymane Niass dinañu ko fa teg teg ay ISEP foofu nga xam ne au moins les étudiants yi nga xam ne ñu ngi souffrir les étudiants du du Fouta yi ñu souffrir dans dans dans les universités et autres. dinañu am fu ñu leen loger ñu nekk foofu mooy gën a yomb ci ñoom te je pense que mooy gën a yomb sax ci ci ci ci état ci seen bopp vraiment. waaw non par là. par là que que am formation. Mm-hmm. ñu dugg mm-hmm. am liggéey. foofu wala c'est vrai que aussi il faut pas trop trop trop que les jeunes restent. Mm-hmm. détachés du Sénégal. développement endogène mooy. am formation bi mën na liggéey sa sa sa dëkk mais aussi hmm. bokk ci Sénégal hmm. c'est-à-dire que cette culture là aussi je pense que baax na que nit ñi développé ko hmm. euh, les régions les terroirs quand même sont importants pour euh, pour pour le pour le pays quoi parce que suñu faiblesse yëpp je pense c'est que tout est à Dakar c'est ça en fait je pense que y a beaucoup d'efforts à faire en, en direction des régions là d'accord merci doyen Maodo Sy Albert Adama. Adama Adama incha allah. Euh, merci Maria maa tuuti rek ma. waaw journal journal jot na de. non trois personnes rek laa ci fàtte donc euh, damay remercier Amath Tidiane Ndiaye. Mhm. donc Cheikh Na Diaw. Mm-hmm. Moussa Ndiaye ah. ak Djibi Bari def nga kàdde donc euh, ay Oumar Sy si biir euh, merci Demba journal mooy ñëw léegi merci beaucoup maa ngi nuyu baax a baax Simon Sène chanteur njoko njal a baax Abdou Aziz Mbodj sama grand frère njoko njal merci à tous demain inchallah 11h on va recevoir l'honorable député Sanou Diome suba inchallah bu taxaw comme ça dinañ duggaat biir assemblée bu baax a baax baax merci à tous rendez-vous demain inchallah 11h